rien que boo jëlee teer bi ak autoroute Patte d'Oie Diamniadio AIBD AIBD Mbour Thiès ak Ila Touba ñu ngi ci 2036 milliards soit 25 pour cent de l'encours la dette actuelle boo ko comparé li ñu jagleel programme yi nga xam ne c'est pour corriger les déséquilibres parce que ñëpp xam nañ ni biir réew mi dañ leen fàtte woon soo jëlee fu mel nii euh, Médina Yoro Foulah defe naa boo fa demee amul presque benn tali bu ñu goudronné ñooñu li ñu leen jox ci cadre PUDC ak PUMA tuuti na trop par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy jagleel les grandes infrastructures de Dakar loolu yëpp nag day traduire benn échelle de priorité boo xam ne moom la ñu bailleurs yi di imposer parce que bailleurs yi je suis désolé de le dire du ñu xaritu Sénégal FMI du xaritu Sénégal les bailleurs bilatéraux du ñu xaritu Sénégal c'est des gens qui gèrent des intérêts et am nañu seen fulla pour défendre intérêt yooyu bu ñu lay jox sa xaalis seen xaalis dañu lay wax fu ñu bëgg nga dugal ko pour mu mun leen jëriñ moo tax infrastructure yi ñu jiital ko ci éducation ci santé ci hydraulique ci agriculture jàpp nañ ni yooyu investissement bi du gaaw a ñëw bu ñu la joxee ne la joxal suñuy entreprise marché yi exonéré leen impôt et tax ba pare ñu am ay facilités yoo xam ne dinañ mun a récupérer seen investissement bàyyi fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay ñett rek ci projet wane na ko bu njëkk mooy TER TER bi biñ cool yi amee dañ leen ne TER bi dépassé na 568 milliards yi ñu waxoon ñu ne loolu la ma bind question écrite defe naa mon cher collègue Abdoulaye Daouda Diallo était ministre il m'a répondu mais confirmé woon na ni TER bi dépassé na 700 milliards mais ni mu ko justifié woon mooy taxes yi lañ ci dugalul mais les taxes c'est des éléments du contrat les contrats sont libellés hors taxes et TTC tey boo xoolee le coût du TER première phase bi rek dépassé na mille milliards boo jëlee tous les contrats que j'ai muy contrat wu soo jëlee les montants initiaux les avenants transfermes les avenants transconditionnels TER bi dépassé na les mille milliards deuxième élément bi muy les délais de livraison du TER bi ngeen koy lancé en 2016 da ngeen jox rendez-vous sénégalais yi euh, au mois de janvier 2019 janvier 2019 bi ngeen ñëwee da ngeen inauguré TER laa ne bu Macky Sall duggee ci TER bi dem jam ñaajo bu dellusee santatuma Sonko ne leen TER bi du daw fii ak mois de juin ngeen joxaat rendez-vous mois de juin ne li ko waral mooy da ngeen def test six mois juin boobu ngeen joxewaat novembre novembre passé na jusqu'à présent pas de terre loolu wane na ni gouvernance boo xam ne dañ koy lal te di joxe de mauvaises information au peuple loolu daxalul ab réew ñetteel bi mooy l'autoroute à péage monsieur le ministre dama bëgg a xam ndax Eiffage dafa am lu mu yëngal naanal leen ko wala est-ce que lan mooy problème bi parce que un ouvrage boo xam ne 354 milliards Eiffage def ci 65 milliards kese tey ñu jox ko exclusivité pour 30 ans. merci.